Sunu People TV, la chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information en temps réel. nit taxaw la kaw gi ñuul loolu la la. waaw mu doon nii la wala la wala. doy na taxaw la kaw gi ñuul loolu la rek la. Sunu People TV, l'actualité en temps réel. L'actualité en temps réel.